barakatuhu euh, monsieur Kane maa ngi leen di euh, remercier di leen wax dal nag jàmm comme na ko même ko doon faral di waxee rek dal nag jàmm ci lycée Ababacar si nga xamante ni seen lycée la yéen da ngeen mas doon partenaire ndax damay faral di wax ni yéen a mën a yeggale suñu kàddu ñun fuñ ko mënta yeggale Euh, may rafetlu toujours euh, démarche bi euh, dama len faral li wax ni damay préférer toujours information ngeen koy jëlee à la source surtout que tout ce qui concerne le lycée à partir du moment que suñuy buntu dañ len ko massa a lepp lépp loo dégg rek n'hésitez pas suñu numéro de téléphone mi ngi fi bu ngeen amul jot pour ñëw bu ngeen amé jot bi ñëw aussi lu mu xat-xat-xat mën nañ len donc may

bu yagul def nañ fi cérémonie euh, de réception de dons muy cérémonie bi nga xamanteni ci lañ doon recevoir euh, bus climatisé bus climatisé bi nga xamanteni euh, kuñ naan Abdoulaye Ndiaye Ngalgo dans avec son mouvement euh, ànd defar ñom ñoo ñu ko may lu yees jitu lolu def nañ fi benn journée de l'excellence boo xamante ni bu jéggi dayo wax dëgg yàlla donc ñu primer suñuy meilleurs élèves ci lycée bi nga xamante la barre dañ ko élevé woon très haut pour nga am prix il faut avoir minimum moyenne 14 minimum moyenne 14 sur 20 moyenne semestrielle et malgré ni ñuy élever la barre il y a eu 78 élèves qui ont été primés, qui ont des moyens compris entre donc 14 et 17 et quelques. Donc, meilleure moyenne étant 17,10. Ah, une cérémonie aussi, bon, machallah élèves yi kontaan nañ de gis parents d'élèves yi partenaires yi képp kuy autorité ci lycée bi ci dëkk bi nous sommes terminé fin d'année scolaire Nous na donc terminer par cette dernière activité des cette di activité boo xamante depuis daaw nous ko programmé y y def pandémie bi pandémie. en début d'année aussi nous avons relancé ça. Nos partenaires malheureusement, ont malheureusement tombé la veille l'arrêté ministériel interdire encore mobilisation yi parce que pandémie est mi donc ñu avons leen ñu contexte favorable kon li pandémie bi xaw a wàññeeku nii moo waraloon donc ñu relancer l'activité activité bi nak ñi ko organiser wala ñi faral di def muy ONG greffe greffe def di ONG bu nekk Thiès groupe donc de euh, recherche le.

am ay médecins ay infirmiers ay juristes corps de métier pour intervenir ci éducation donc des filles euh, du genre genre genre féminin ak genre masculin yépp la concerné du rek donc ONG bi machallah xaral la may si sax di ñaanal euh, dem ci yalla ñu ko doon wax la maire nga danaka na ci la conférence bi mu tenir à Thiès nga xamanteni bañ ci juggé képp ku doon jigen di ndaw di élève ci lycée ba gën nga défar sa woon sub sub sœur contrairement ak ce que li ñuy wax lépp nak ñi dañ di yar xalé yi dañ di yedd xalé yi ci walu donc éducation ak fierté bi jigen wara am ci bopom waaw ñi ci loolu la ñuy yëngoo ah kon nag activité bi ñoo ngi ko tuddee woon mi ngi nii affiche yi def un peu partout ma liiral la ko après ma jox la le gouvernement scolaire en partenariat avec l'ONG GREF organise une activité de sensibilisation sur la violence basée sur le genre en milieu scolaire la violence basé sur le genre en milieu scolaire ah dama njortu ni ki def link manam corrélation ou le lien entre violence basée sur le genre et homosexualité Il y a si xam-xam sa xam-xam moo ce qui sa gis-gisu aduna, moo toll noonu il ne faut pas que nous tympaniser nit ñi aussi ni jang ñoo ngi jang fi ñi am ñi responsable ñoo fi ne ma lay ni activité avec l'ONG nous avons envoyé en formation des professeurs encadreurs dont le professeur Tierno Alioune professeur d'histoire et de géographie un professeur de SVT M. Lo envoyé assistant social ak bi fi nekkoon nga xamante il est promu proviseur mooy proviseur au lycée Medina Fall bu Thiès kon ñooñu bokkoon nañu suñu demoon formation bi bi ñu defee formation bi bu gën xam la situation la problématique ñu war a def l' de sensibilisation contexte pandémie bi ne permettait pas ñu donc différé ko ren sax mun naan dërle woon nañu suñu activité mais comme bii c'était calé depuis l'année dernière une en début d'année nous avons fait un jour pour tenir la veille encore bien arrêté ministériel il n'était pas informé malheureusement ils le matériel responsabilité tenir l'activité Nous le moment favorable à présent c'est parce que nous avons pratiquement toutes nos activités dans comme nous allons war une jëm ci composition semaine prochaine te enfants, yi nous ñu paree composition mënatoo leen am nañu donc jël semaine bi ñu nous dérouler cette activité cette une sensibilisation xëy na sax format bañ doon def on n'a pas ce temps-là alors donc dëgg donc si sens nous avons travaillé travailler comme avec le gouvernement scolaire comme nous nous koy faral di defee ndax nous lu muy def rek man nous avons dañu un gouvernement scolaire Nous avons président am ministre de la santé am président donc l'organisation euh, comme ni ko tableau l'organigramme du lycée vous voyez donc xalé ñu yi sawar activité c'est parce que derrière nous la OK. kon euh, ba évaluer euh, yàq-yàq yi xale yi def euh, parce que ñoom ñoo euh, déployé woon toute la logistique pour une bonne réussite de l'activité kon nag yaakaar naa ni heureusement xam nga ONG bi moom danaan man maay jël par exemple pour ce secteur ONG danaan man maay jël en charge seen location bâche location

pour que ñu jox gouvernement scolaire ñu dem def location bi kon yaakaar naa ni matériel bi matériel u locaat ab ab euh, kuy daan dooleem la nekk fii Tivaouane heure bu ñu démé amé activité mo ñuy louer bâche moom mo ñuy louer chaise man damay wo gouvernement scolaire rek mu défal ma expression de besoin ñaata lay correspondre donc ma euh, jox ko mu dem xalé ñoy organiser lepp kon yaq nañu mais ñu yaq wax deug yalla fi wa Tivaouane la xëy ONG bi comme dafa débloqué de l'argent pour prendre en charge ces euh, frais d'organisation xëy na financièrement lañ koy euh, yàqal voyez léegi nag activité bi mi ngi déroulé la violence basée sur le genre en milieu scolaire ma répète, quoi violence basée sur le genre en milieu scolaire voilà donc ça n'est aucun lien aucun lien ak wax deug yalla homosexualité man xaw fan la jóge ci aduna té yakar naa ni man en tant que professeur ñu denk ma éducation xalé yi ak lima liñu fi liggéey lepp ci ñaari at yi ci lycée bi may permettre donc un discours lu orienté vers l'homosexualité amul sens amul bopp amul genn duma ma na xale yi yaa ils sont manipulés aduna euh, euh, mom noonu la tuddoo man dama gëm ni aduna y a pas que des succès aduna munoo ni man ay succès rek lay am déedéet sóoraa leel ni bis dina ñëw tolof tolof dina taxaw kon tolof tolof yi dañ ci mën a jaar intégrer ko pour faire d'autres bons un autre rebond waaye duñu yàqal dara ci suñu pas-pas suñu gëm-gëm par rapport ak l'école sénégalaise waaw ban maa ngi tudd Maxet Guèye maam Maxet Guèye waaw euh, di proviseur lycée bi

kon ba ma koy yor du tuuti laa kon du ak lu ma bon bon bon xanaa am naa si benn salaatul faatiha bu nangu waaw kon nag gënuñu ma doon taalibe gënuñu ma bëgg sa gis sëriñ si nañu ànd ak dal te ñu nangoo jàng nag tey def attention jullit dafay luñ ko xamee mooy ànd ak dal tëll rek ni damu na te li ngay wax yow sax boo amul amul benn bopp amul benn génn boo demee say autorité ya nga war a expliquer sax muy inspection d'académie muy préfecture amul fenn fuñ lay mën a waxee lu cohérent fenn fenn fenn na ma ko la koy waxee noonu laa ko waxee samay professeur ñi fi ñëwoon di ñàkk naan ma ñun de fu ñu gisee genre rek dañuy foog ne socialité man leen bàyyi leen fontu dam leen ngeen jàngi nag bàyyi leen fontu ban link la amee kon foog ñuy waxante dëgg nañu bàyyi di yàqal nit ñi si gaalu xaj nañu bàyyi di dëkkal nit ñi fu ñu dëkkul ñu nangoo jàng ñu nangoo ànd ak dal gënuñu ñoo bëgg réew mi gënuñu ñoo bëgg lycée sëñ Ababacar Sy gënuñu ñoo doon ay jullit gënuñu ñoo doon ay taalibe cheikh ndax muy xadra muy donc waliso lu lu ñu war a def matale naa ko ba mu mat sëkk man awma kersa tiim samay wasila di sëgg parce que le ma lañ ma sas defuma ko taalibe sëñ Muniru Njëgën laa te sama digganteeg fi chef religieux aussi bi ma donc sax dem naa ku si nekk donc ma rendre la visite xëy na général j'ai pas eu l'occasion de le voir mais domam dalal na ma Maodo ñu di rafetlu maag sama staff yëpp dalal nañ ñu la war donc ci donc euh, participation en tant que taalibe aussi pour lycée bi

bu ñëwee bi yàqu mais du dara dañuy intégré ay ay ay jullit lañu gëm nañu yàlla gëm ni donc lii tolof tolof boo xamante ni il fallait nga dund ko pour xam ni ah àdduna tout n'est pas parfait waaye ñu gën a bàyyi xel si ndaka léeg-léeg di nga nekk ak ñoo xamante ni ñu xëy di la di dañ lay ree di la jegale wan la ñoo la gën a gëm ñoo la gën a donc fonk mais en réalité mooy loolu ndax am na un soubassement de manipulation waaye du ma dugg ci détail yooyu man damay gëm ni lépp yàlla la rek nañ delloo lépp yàlla kon daal wax dëgg yàlla li laa amoon lu may wax donc monsieur kan donc di leen encore une fois euh, rafetlu euh, ñëw bi donc di leen jéggalu nag wax dëgg yàlla ah, ndax liggéey bi metti na ci yéen wax dëgg yàlla waaye nag di leen ferdeel suñu kóllëre ak yéen di leen wax suñu buntu daal mi ngoog tëjuñu ko lu ngeen am lu ngeen soxla comme information donc ñëw leen ñu jonk jox leen ko ba mu mat sëkk salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fatal